Bayna dafa toog ay ganam ñu timis jot mu bàyyi gani ci jardin public bi dugg si jàkk ji di julli génn laajte ñu ne ko seen booy ngeen toogul fi yóbbu nañ leen kër mu topp leen dem ba foofu ñu jàppale ko fekk mu ñuy dóor gars yi si Portugal ne dañoo bëggoon taal kër Barthélémy Dias ça nous a fait très mal quoi parce que papa yi Barthélémy Dias papa yi euh, Bayna Gueye dem na ba si baat baat ne ko on fait de la politique on fait de la politique certes quoi mais politique bu dëng boobu xëy na ko ça fait très mal ñu jàpp sa frère jiñ ko loo xam ne amul mais nag ñun xam nañ ko man duma ñun duñu ànd ak kuy tooñ ñun duñu tooñ ñun duñu tooñ duñ fen kenn parce que mënuñu woote nitu dëgg ba noppi naan dañuy taal ay kër jàmbur lan lay beneen lan lay taalee kër jàmbur donc lu ak lu mën a am ñun loolu daf ñu metti woon bëggoon bëggoon nañu ko wax trop trop trop sa s'agit des autres arrestations nag je pense que Sénégal yëpp lañu arrêté ñun bu ñu génnee si kaso bi les gens nous disent massa massa leen coono mais man damay wax ñun ñun ñoo leen war war a wu coono yéen le peuple parce que Macky Sall ñëpp la sonal ñëpp la tëj kaso mais c'est normal parce que y cinq ou six ans de cela ñun toogoon nañ ci micro yi di wax di yuuxu pour sénégalais yi dégluñu que Macky Sall mi ngi tooñ tooñ bu méttee métti benn nitu yàlla bu tudd imam Alioune Badara Ndao mu jàpp ko tëj ko en prison ñetti atu yàlla ñu yëñ ko terroriste presse yi tey presse yi yëpp presse bi bu ñu xëyee di revue de presse imam bi fekk nañ ay portable satellitaire imam bi fekk nañ dafa ay terrain d'entraînement jihadiste fekk na ci ay arme ay même jeune Afrique sax da doon bind si loolu imaam bi 4 heures du matin lañ ko fekk këram du mu jug ci di ko di ko du matin tas seng yi mënute ko di tuur saaku ceeb bi xam nga lan lañ doon seet mënute imam bi ci kanamu njabootam plus de ay 2000 ndongo xale yi di jooy ñu takk imam bi yóbbu ko ñetti at la toog gisul njabootam ma toog wax naa ko fu nekk si bu leen bëggee xam dafa leen vaar ngeen xool vidéo yi ma ni que nee na da te xeex terrorisme kon suñu la koy jàppee ñun ñooy fay juge yi ñooy fay Macky Sall suñu tur la ko jàppee mi imam bi Sénégal yëpp di seetaan la ji ñoon imam Ndao tey ñëpp ji ñeen ñeen terroriste jaakatu jëni terroriste la journaliste yi terroriste lañ jaakatu caafi terroriste lañ sëñ ñëpp nekk nañ terroriste parce que nit yàlla lañ tooñ nit yàlla bu ñu ko tooñee bu askan wi jugul lay daal ci ñëpp lay yàlla buy dóor ñii day nekk natt ci ñoom ñii mu nekk mbugal ci ñoom moo tax affaire imam Ndao moo tax man ma waxoon ni lii mënuñu bett Macky mu mujjee fi ak Sénégalais yi donc moo arrestation booy cité ay tur sax di wax naan dañu arrêté Thierno Sall suñu frère la nitu dëgg la leader la boo ne Ousmane Sarr yàgg nañu ko arrêté Thierno Sall yàgg nañu ko arrêté nga ni Bayna Gueye nga ni Mansour jóob ak lu mën a am en réalité après di nga cité ñeneen pour wax nag si euh, fi ma daan la ci détenu yi ci maman Amidia parce que maman Amidia man personnellement man dama ko seeti woon parce que ñun bi ñu defee quatre mois de prison man dama génnaat prison bi ñu génnee ñun ma man dama seeti maman Amidia dem seet dem këram gis yaayam def interview foofu jóge fa après ma dem prison seeti ko dem seeti maman Amidia quoi ku nekk Sénégal dañu leen di fàttali lan moo waral arrestation maman Amidia cinquante mille francs lañ ko envoyé Wave bi ñu ko envoyé cinquante mille francs yi mu koy envoyé beneen booy Pastef loolu lañ ko jàppee ni ko financement terrorisme hmm. maman Amidia def na deux ans ci prison bi ñaari atu yàlla jigéen bu am ay doom jigéen ak ni mu mel bu am ay doom jiñ ko force spéciale ku ne xam nga luy force spéciale ñu tëj ko ci kaso bi maman Amidia def na deux ans damay nekk ci prison bi ñoo man non kay da ngeen yàgg ci prison bi ma ne su ma xalaatee maman Amidia rek man damay ruus quoi te ba léegi nii man mënuma concevoir sax di añ di lekk di nelaw Maman Amidia nekk ci kaso bi quoi ay Sonko ñoo xam dañu sacrifice seen laax pour Sénégal nekk ci kaso bi yow nga nekk ci dëkk bi xaap yi man yooyu wax may sonal doo mën a nelaw sax tey même pas dormir parce que góor gu nekk góor nga parce que nit waroon nangu li ngeen bokk ñu bokk ñun ñëpp nit di ci xeex ba ëppal rek ci quoi waroo ko nangu loolu bokk na li ñoon souligné di wax Macky Sall ne ko mu bàyyi Maman Amidia balaa muy dee bu dee si ay loxoom dara du ko ci génne dara du ko ci génne dara ndax ñi ñu war a jàpp mooy sàcc yi les voleurs ñi détourné fonds public bi ñi sàcc àllu réew mi ñi nax sénégalais yi anytime taxaw ci télé bi di wax keroog gis ngeen ko yéen journaliste yi ministre de la justice dafa taxaw jàkkaarloo yi di fenn yu leer nañ daan ne Absa Absa comment Absa non Absa journaliste Seneweb bi Absa an ne policiers yi dóoruñ ko lu ne fàng nga ne amul loolu insulte la ci peuple bi nga wax c'est-à-dire ñoom dañ dem ba en réalité ñoom xam nga nga taxaw di fenn ñi ngay wax ñi ngay waxal xam ne da fen nga dem ba xam ne yow nga xam ne yow da fen mais nga continuer di fen nga xam ne ñi ngay fen cest à loolu en fait yow nekkatul nit loolu leneen la du affaire nit donc yooyu ñun ñoo ko war a a xeex mu dañ te ni ñu taxaw a dellu ginnaaw tuuti te xeex bi foog ñu a jóge donc loolu daal laa wax si détenu politique yi léegi damay ñëw si beneen bi mooy dialogue parce que je pense que ay points yu ma énuméré vite fait euh, bi man li ma si dialogue dialogue dialogue national la mais tour de famille la quoi en réalité du dialogue mais li si expliqué c'est très simple man ñaar laa ci déploré bi jiitu mooy d'abord mën naa juum mais dama jàpp ni en réalité opposition bi dañu waroon dem si dialogue bi dañu waroon imposer Macky formu forme dialogue naka la ñuy dialoguer maanaam Sénégal actuellement amatul président il faut